am na tamit benn délégation be PAM xam nga dañ leen waroon jox ay ndimbal day foofu nañu demoon moo tax ñu tar tuuti vraiment li ma gis nii rek vraiment dal na xel parce que man moo tax juumuma bi sama siège ko bi man Thiès moom ñor dama ñëw pour jàppale son président Macky Sall man ko def defuma politique man technicien la politique de développement def pour son Macky Sall président nak mu ngi liggéey mu ngi nek nekk moo wax bi mo wax tay mom la tout ci diko fatali ma ne ko keroog président bu ñu inauguré AIBD ma ne ko président na nga bayyi xel ni bu baax aéroport bi doomu ties la na nga fexe doomu ci sa gisal bopp man mo moomu ñor bëgg naa jàppale doomu ties way jibril nak comme toujours li mu faral di waxé Ali wax nako légui nit bés bu nekk koy may jën jàng ko ni nappe jën ñun tey lu tollu tey fanweeru GIE femmes association de femmes ñoo leen forni sal origel savon moo tax boo xoolee fanee passé dem na si école capitaine Moussa Diouf école boo xam ne lu mën presque ñetti téeméeri élèves ñu foofu benn robinet boo fa nekkoon bu ñu fa defee juróom-ñeenti robinet dañ fa def may leen imprimante dafa lay ay borne fontaine boo xoolee hors de jeu bi nga xam ne ay caisse hors de jeu bi nga xam ne maanaam ñun ñoo ko may wax école bi sax boo xoolee ñi femme mouvement ànd soxla Thiès sax ñoo ko defal seen bopp en tout cas li mu mën rek mooy vraiment maa ngi jégalu bu baax xaw na guddi comme li ma faral di waxee rek ñun suñu wax pour ñu jëf bi mu am solo d' abord li may commencé mooy li ngeen wax yi seen bëri gis naa ko d' abord les femmes dina leen defal formation nu mu gën a gaawee semaine prochaine bu soobee yàlla soxna si bi nga xam ne maanaam moo yebal tey moo taxaw tey ndox am bi ci am fi tey Caroline bu baax maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm bii mooy énième eh fois mu ñëw si man lii mooy ñii vraiment ku femme bu dëggu la gi lii ma gis si mbootaay bi tey gis ma ko fenn incha allah rabbi semaine prochaine li mu mun mooy dina leen jàppale si wàllu ay cin ay kuddu ay basan nga xam ne wala amee activité la allah rabbi doon leen somm dañ leen jàppale tey moom lañ demoon defi tey somm foofu nañ jóge léegi-léegi ñun nag duñu waxantu du ñu sànni kenn xeer son excellence président Macky Sall la ñuy jàppale. parce que président mu ngi def effort bu mag mu ngi liggéey mu ngi jël ay poste yu am solo di ko jox doomu Thiès waaye ñun nag Thiès moo ñu ñor defuñu politique politicienne defuñu politique intérêt moo tax ñu ngi tàll ñëpp loxo dañuy ñëw liggéey ak mouvement ànd soxal Thiès soxla suñuy gox. lu ñu bëgg mooy dañu bëgg Thiès émerger émergence ak mi commencé suñu gox li ma duggee fii lu ma njëkk a yéemu mooy. fii gis ma fi làmp tàkk c'est pas du tout normal en tout cas li ma gis mooy incha allah rabbi lii naa fii ak maanaam xam naa fii ak suba sax ma naa woo ki nga xam ne maanaam mooy technicien bi mu xool s'il y a des raccordements oto bu nekkee même am na ay ampoule burli automatiquement ñun dinañ génn si poos dugal ko si comme ni ñu defee si yeneen quartier yi état aussi mënu def yëpp

par nañ si saa yoo leen soxlee chaque jour di leen ne nekku di leen xool comme ni ko soxla si waxee rek ñun ubbi na si bunt ñun amuñu sens interdit képp ku ñu soxlee dañuy wax li may wax acca kii nga xam ne maanaam mooy responsable moom mooy tout ce qui est action sociale acca bëgg naa semaine prochaine incha allah rabbi soxna Caroline nan ko jox ndimbalam mu ngi nii nga jox ay cin ay bool yëpp nga jox ko incha allah rabbi dinañ si taxaw lii nga xam ne maanaam formation nag formation femmes yi kii nga xam ne maanaam moom mooy wàllu yi tey dafa amoon tey benn dama bëgg incha allah bu ñu fi jógee Caroline à partir de nga jokkoo ak moom mu commencé si femmes si wàllu eau de gel bi bi ak confiture bi incha allah dinañ ko def pour le moment nag di xaar lii nga xam ne maanaam moom la président di xaar si ñun vraiment maa ngi remercier bu baax a baax di leen gërëm si seen ñëwaay bi di baalu àq nag bu baax a baax si retard boo xam ne def maa gudd sama coob coobare wax ni que man maa ngi seen ginnaaw fépp bu xam ne foole moo soxlee foole ma woowee rek pare naa ànd ak yéen ngir liggéey ngir lan ngir soqali Thiès si kanam jërë ngeen jëf merci jaxaaw bëgg la nga bëgg waa jaxaaw sa taxawaay bi nga taxaw boo ci teggiwul sa tànk incha allah li nga ci bëgg di nga ci am incha allah loolu nag ñun waa jaxaaw yëpp danañu takku nekk sa gannaaw jàppale la ngir loolu mën a sotti kon yii ngeen di dox di ko def ci lu baax ci dëkk bi di ko def ci réew mi yal na leen yàlla jàppale ba loolu mën a sotti Habib yal jàppale ñun de amuñu dul ñaan ñaan gi nag danañu ñaan parce que doom nga te duggu nga bir jaxaw nga duggu safo wa jaxaw wa jaxaw tam safo la ma ni kon nag moom la lay wax ni la ah ñu ngi na la wa jaxaw jàppale nga jàppale jaxaw ba jaxaaw assalamu alaykum wa rahmatulah. ñoo ngi sant le président du move ànd suqali Thiès ndax mom ku ko déggul itam xam nga ko li def ci lu baax machallah ñepp gis nañ ko gis nañ ko ci télé gis nañ ko ci fépp lolo tax ñun tammi ñu jóg andax mom won ko ni ko ñoo ngi si ak suba ëlëk yépp ñong ci ginaam dika di ko jàppale fépp fu mu ñu ayca rek bu soobee yalla and nañu pour top ci ginaawam sama wax nak du ci bari parce que mënoo ma wax bu bari abim Niang kenn du ko jangal mi ngi ni gis ngeen ko politique naxé mo jeex politique naxé mo jeex di top nit ki te xamula bo jaaré ci santam dula fay lolu jeex na fi ki ngeen bëgg di ko jàppale na ngeen ko xam ràññee ko te loolee lay def wul téléphone am tëjul biroom tëjul buntu otoom loolu xam nañ ko ci abim Niang parce que nit ki da ngay amug yëg ci nit da ngaa bëgg man ku may mu xàmmee kii je suis man maay kan mu xàmmee ma ràññee ma waaye di wax di sànni doo xam nit ki boo ko bu bu boo ko xamee tey bu ëllëgee doo ko xam bu la rombee tey ràññee la bu ëllëgee bu la nuyoo doo ko fay boobu baaxul bu leen kenn nax jàppale leen koo xam da leen di xam da leen di ràññee loolu mooy dëgg di leen xam di leen ràññee ràññee gee ci am solo waaye topp nit ki mais li dërëm bi connaissance bi ak ak bëgg-bëgg bi ak yëg gi moo am solo mais xaas bi du dara bu nit di wut wutal nit ki ndax amaana ëllëg li mu bëgg bu ko yàlla may bu ko fekkee présence lépp yomb merci beaucoup. élection yi passé rek wane na ko ku ne nañ jàppale nañ lay mobiliser def lu ne ba jaxaaw ba affaire am fi lu bari. mais ñu kenn ba tey ñuy wax ak ñow tey jii bu ñu amee Habib dañuy sant yàlla bu baax maa fi représenté Habib Niang maa fi représenté artistes yi nekk jaxaw fii dama bëgg nañ ñëpp tàcc Habib Niang Habib Niang mii jaxaaw li yëpp am ko mel ni moom comme yàlla indil nañ ko fii nag xoolal wuy ma fii kenn mënu nax kenn kenn mu nax kenn fii kenn mënu nax kenn bon dama bëgg ngeen xam ni kii nga xamante ni moom lañ yàlla booleel mu dëkk jaxaaw mais dañ ko war a jàppale mooy dëkk mais bu ñu demee jàppale keneen ci àll bi bu ñu amee yenn problème bu ñu demee ci moom duñ fajal dara yi élection yi rek wane nako gis ñu kenn fu mu doon nii gis ñu kenn man dama démissioné dama xon dama bàyyi naa sax politique. Habib affaire bi yow la Habib affaire bi yow la ku ragal na nga daw ku ñeme taxawal Habib mi ngi ñëw. tay dina wax Habib ñaa lu la sama ka du bari parce que ki tay bu nekké dañuy tok fi di wax ci mom kan tay duñ fi jugee ndax lan. lu fi def fii jaxaa lu fi def bëri na ay politiciens yu fi ñëwoon te defuñu ko ndax lan boo leen demee école base bii tey Habib Niang lu fi def da nga naan déedéet ngeen dem école Michel Legrand bii Habib Niang lu fi def ngeen ne déedéet école Michel Legrand amu woon robinet Habib Niang mi indi na robinet bi grâce à ngeen dem dispensaire Jaxaaw Habib Niang nu fa meesi ak carte mutuelle kenn xamul lu mu toll te incha allahu rabi yéen ñi mbootaay ñi fi teew ñëpp Habib Niang dina leen indi seen wàll incha allahu rabi wax na leen ko tey mun naa ni mun naa mun naa ni dixième bi boo fa demoon bu njëkk ba dañ lay agressé dañ lay agressé ndax daal la na moon trop waaye jamono ji boo fa romboon léegi nii tey jii boo fa wadaloon ñaar dërëm sax mu feeñ ndax Habib Niang def na fépp ay lamb kon loolu ku def lu baax loolu ku def ku def lu baax loolu man man man kii dama koo xam bu baax lu ma nekk fii sax toog di wax ay waxam lu ma nekkee fii di wax ay waxam kon moo fi jógee am na ñu xam loolu am na ñu xam sama diggante ak moom dama koo xam bu baax a baax kon lu ma nekkee fii di wax lu mu def kon lu ma fi jógee tey waaye li may mën a wax rek man waa Jaxaaw kii góor la nañ ko jàppale te yàlla tax nañ ko jàppale yóbbu ko fu sori fu sori ndax président Macky teg na ko fi nga xam te nii mën naa ne bu ñu ko jàppalee incha allahu rabbi ñun waa Jaxaaw dinañ lay ñaan nag mooy ay lamp ay lamp lay ñaan ak koñ bi fii nii juma boo fi doon jaar sax paa yi duñ namee jaar nag dañ fiy këpp ay ndox ay puisard grand ak ak ak ay formation yoo xamante nii suñu yaay yi ndax boo demee euh, fële kiwu pël ya coona femme yi groupement yi fi mu ne nii ñu ngi defal seen ordre di jaay na grâce à monsieur Niang mii kon daral pël la même chose kon nañ jàppale Habib Niang nañ jàppale président Habib Niang sa baat ci kaw jaayëf dañ koy ñaan yàlla rek li mu sumb yàlla na ko yàlla eggale ci barke Seydina Mouhamed kees nga bëgg suqali jaxaaw suqali fépp yow lépp dina ñëw incha allah ci sa loxo bu sooba yàlla ci kàttanu sëñ Babacar ak sëñ Fallou Mbacke loolu rek lañ amoon luñ ciy wax suqali jaxaaw nag du question que ni nañ jàpp kii am fii kii am lii déedéet nañ bokk ñun ñëpp dóorandoo di dóorandoo ñun loolu lañu gëm di teel a xëy tey guddee waaj ñun jigéen ñi dañoo takk suñu sër ba mu dëgër jàppale suñuy borom kër fa séenee liggéey na jàppale suñuy doom ak suñu càmm yi suñu ginnaaw te lépp nag teg dañ ko ci sa loxo incha allah ñu ak yow ba géej gi fer wasalaamaaleykum wa rahmatullah Habib Niang suñu koñ bii amul lamp bu ñu kanamee tuuti ay 10 heures boo fi jaay da ngay jéggat fii mooy turukaayu ndox bi bu ma waxee dëgg da ngeen di tàcc boo avancé ba fee ca kanam fee lamp bay tàkkee foofu laa dëkk benn koñ bi la li ko commencé ra kondir gële ci ginnaaw ba ci jàkka ja mooy koñ bi amuñu tuurukaayu ndox amuñu làmp bëgg bii ci guddi karo dafay jóge këram di ñëw sama kër rek fii lañ ko dàqee dafa daw ba yéeg sama kaw la loolu nag dañu booy jooy dangay gañ ka yaak nga yaakaar mu fekk sa soxla tubaar fakkaal la nga jàkkaarloo moom ñu jàkkaarloo yow ngay dangay àndal man dama la suqali jaxaar suqali Sénégal du ma suqali kees ndax li nga mën di ko def iñaane woo ko kenn ubaloo ngi sa kanam ubaloo ngi sa bunt ubaloo ngi sa dara di remercier nag say secrétaire nëbbu ñu la denc ñu la faussé wuñu rendez-vous kooli ci kar mu wuyu yàkkamtu lu muy ñu ñaar ñu soxla rek ba ñu jox ñu waxtu ñu ñëw kon ñu ngi lay jàppale jàpp ki sa liggéey tënk sa liggéey macha allah yal na nga yeggale sa sago ñu ngi lay ñaanal lii ñu suba ci bisimilah rahmaani rahim mooy yëkkati kees teg sa loxo tëddal nelaw ay góor nga digaaleel de te ñun ay góor lañu ñu ngi ñaan yàlla yal na nga yeggale sa sago ci barki Seydina Muhammad waaye tàkku leen lii lii jar naa Serigne Touba Mbacke li ma jàppoon lépp ak li ma lépp bàyyi naa ko yow laa fas yéene liggéey ñu àndi sukkali waa Jaxaaw man maay artiste waa Jaxaaw man maay président ASC waa Jaxaaw supporters yi Habib dañuy ànd ak yow liggéey ak yow nga xam lépp dëgg la parce que yow gor nga mais ñi nga xamante ñoom lañu àndaloon ba man amul ma ragal amul ma tiit mbul man damay Habib kii xam na ma grand bi xam na ma bu baax man aw ma caaxaan damay animé damay def lépp mais dama ne la bis ni ki tey barki Serigne Touba Mbacke loo wax muy sécurité ak lépp ñu bëgg dinañ ànd ak yow liggéey ko ak yow ngir yàlla parce que yow la ñu gis damaa bëgg ngeen tàcc bi mais ñi si des ñi si des du ma nag ragal ma du ma mais gor su wax ja moo tax ñu démissionné ñëw tey ci Habib